Assane Dione maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi nuyu ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax. Assane euh, nga bokk ci Mouvement Africa First chargé de l'école du mouvement euh, tey jii ñu laaj la tuuti rek nga xam euh, Mouvement Africa First ci lan lay yëngu exactement. waaw Mouvement Africa First ci li muy yëngatu mooy taxaw ngir xeexal Afrique parce que dañoo nekk ay ndaw nekk ay nit ñoo xamante ne ay sénégalais lañ. mais avant ñu nekk ay sénégalais ay africain lañu donc comme ni ko tur bi wóyoo rek Africa First mooy Afrique d'abord. Mhm. donc ñun mouvement bi li ko tax a jóg mooy xeex lépp luy nooteel muy nooteel bu jógee ci biir réew mi muy nooteel bu jógee bitim réew mais aussi taxaw suñu askan ci lépp lu mu mën a doon waaye di xamal suñu askan li ñu war xam ba mën a amal njëriñ seenu askan parce que pour nga amal njëriñ saw askan foo nga xam d'abord yow yaay kan xam sa démb xam sa tey donc loolu Africa First juddu te ci loolu aussi la Africa First bi di dox waaw tey jii ñu lay laaj Assane euh, jon euh, kon tey jii naka nga gisee euh, situation bi nga xam ni moo am ci Ngor jàppante yu métti doon am ci diggante takku der ak population yi gannaaw ab terrain boo xam ne ñu ngi koy xëccoo force de l'ordre yi daw dal ci kaw askan bi ba am ku ci ñàkk bakkanam am tamit ay blessé yu bare bari ban jàngat nga ci am lu siy sa xalaat. waaw loolu jàngat bi ma ciy am mooy. ñu ngi ñaaw ñaawlu bu baax di ko naqarlu ba fa mu yem parce que dafa métti nga ñëw fekk aw askan bi dal seen kaw façon dalin boo xamante ni fii dafa ñaaw parce que tey yëpp mënoon naa parce que ñu ngi dégg ñu ñuy wax ne que tom démb euh, daje nañ pale ba waxtaan nañ seen biir ba trouvé nañ terrain ba xamle nañ ne bi dañ koy xaaj ñaar fii ñu def ko brigade fii ñu def ko donc loolu noonu loolu nekk loo xamante ni fii tamit dafa day waar parce que mënoon nañ koo commencé parce que li ñu ñaawlu rek mooy Sénégal à chaque fois balaa ñuy euh, waxtaan faw ay nit gaañu faw ay nit dee loolu lu mën a ñàkk la parce que lépp loo gis ci àdduna rek ci waxtaan lay commencé ci waxtaan lay jeexe mais nag nit ñi à chaque fois di dal ci kaw nit ñi di leen rey di leen pa parce que dañuy dañuy réclamer seen droit parce que dañoo manifester on et sécurité yi aussi pour man dañoo war a xoolaat anam bi ñuy defee nañ cee de parce que lii terrain la yow ñëw nga fekk population nga ne force dañ ciy def fii nii day looloo du loolu da nga waxtaan ak li ñu wax leen li ñu bëgg ngeen toog ci table ku ne wax indi solution mais mënoon nga fekk benn population yu am seen suuf nga leen force lii laa ciy def ñu ne la ñun bëgg nañ gisee na ne doo def brigade mais ñu ne la ñun amuñu gisee nga ñëw nga ne kut ko kut yow di nga def loolu amul waxtaan amul dara ñu bañ nga dóor seen kaw dóor digal li nga leen ñi nga ba fàttali door a toog di waxtaan loolu loolu dafa dafa dafa dafa ñaaw luñ waroon a njëkk la mais njëkk nga xam ne moom nga war di njëkk ko mooy toog waxtaan daal ba jiboo ba trouver solution. Euh, dañoo war a toog. Mhm. waxtaan. Mhm. trouver solution. parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Sénégal ñi ñi jiite moomuñu Sénégal ñun tamit ñi nga xam ne ñooñu ñoo ñu jiite ñun moomuñu Sénégal. Mhm. réew mi benn bopp la ñun ñoo ko bokk. kon nag buñ fi bëggee def dara yow population duñ ko bëgg a defal mais da ngay waxtaan ak moom dafa am ay préalable am ay démarche mais me ñëw nga bëgg a imposer kenn du ko imposer te ñoom bu ñu toogu doon tey waxtaan juboo du am tey nit ñuy jiite dañoo xamul lan mooy doole peuple gis nga peuple bu jógee ne déet kenn mënu ci dara donc boo jiitee da war a xam ne yow da nga war di waxtaan ak sa population mm-hmm. mais waroo ñëw di leen imposer leen forcer loo xamante ni ci tey ñoom dañ ci am wàll mm-hmm. yow miy jiite moomoo réew mi da nga war a laa bëgg def ñu wax na seen xalaat nga wax sa xalaat ngeen waxtaan bu juboo hmm. parce que dem nañ pale tey démb juboo hmm. mais avant ñuy juboo ñaata nit ñoo ci dee ñaata nit ñoo ci gaañu ñaata nit ñoo ci ñàkk seen liggéey kon loolu lu ñu waroon commencé la te Sénégal li ñu gis léegi dafa ñaaw mooy avant ñuy waxtaan rek taw ay bakkan ra avant ñuy waxtaan rek taw ay ay dégâts am loolu lu a ñàkk la Mhm. Euh, Assane Dione beneen bés bu am importance surtout pour yéen euh, di 11 mai bi si la ñuy fàttaliku décès wu Omar euh, Blondin Diop yéen ngeen koy màggal yéen waa Africa First lan moo waral ngeen di màggal Omar Blondin Diop. waaw Omar Blondin Diop dafa nekkoon nit koo xamante ne tey lépp lu mu ñàkk ci addunaam rek Sénégal moo tax mu ñàkk ko dafa nekk ndaw boo xam ne jàng na ba dem bitim réew. réussir concours boo xam ne intellectuel yu intellectuel yu bëri mënoon ko réussir muy école normale supérieure Saint-Cloud mu dugg fa en tant que étudiant di def formation mais bëgg réewam ak taxaw réewam moo ko moo tax en 1969 ñu exclure ko delloo ci ko Sénégal mais Omar Blondin Diop li mu doon xeex mooy nooteel bi nga xamante ci France nootal na ko Sénégal parce que bu ñu fàtte ne Sénégal ni mu amee indépendance ba ko yéneen réew yi arraché ko mm-hmm. parce que bi ñu voté oui oui génn wala dugg génn wala def ci communauté française en mille neuf cent cinquante huit Sénégal dafa def ci communauté française comme ku mel ni Guinée Conakry bu Ahmed Sékou Touré dafa génnoon ñu négocier suñu indépendance ba am ko bi indépendance aussi dafa nekkoon indépendance boo ci papier la yem doxaluñ ko ci yoon parce que France mooy ñëwoon noot ñu ci lépp jiitu ñu ci lépp président bi fi nekkoon jël lépp lu fi nekkoon teg ko ci ak ay ne woon du fi amee ay nit di toog suñu kaw di ñu noot di jël suñu alal di ko yóbbu loolu la doon xeex loolu la doon bañ nguur gi fi nekk fexeel ko jàpp ko tuumaal ko tëj ko kaso bu de Gorée hmm. kat ko ci anam yoo xamante ni ñëpp xam nañ ni mu demee te ba tey ñun ñu ngi wax boobu noonu tey ubbiwaat ko pour leeral mbir mi demee parce que ñoom dañuy gëm loo ne Omar Blondin Diop dafa xaru te ñun xamoon nañu Omar Blondin Diop nekkoon xeexkat nekkoon ku gëm boppam mu jaral ko mu bay boppam France ñoom Sénégal di xeex kooku du moom nga jàpp ko bu tax muy xaru donc 11 mai 1973 boobu noonu ñu ko faat bu de chaque année bu ñëwee ñun en tant que ay ndaw dañ koy fàttaleeku di ko màggal pour ñeneen ñi nga xam ne xamuñu Omar Blondin Diop a xam njëriñ bi nga xamante ni ci amaloon na ko amaloon na ko réew mi. Euh, kon euh, yéen waa Africafos naka ngeen fas yéenee màggal décès wu euh, Omar Blondin Diop. yan activité ngeen di def waaw. waaw war bëgg war nañ ci def ay activités yu bëri parce que bu ñu xëyee ci suba si incha allah dinañ ko wàcceel kaamil ñaanal ko bu ñu ko wàcceelee kaamil ba ñaanal ko ba pare dinañu dem ci fi ñu ko denc muy ci cimetière yi nekk cimetière abattoir yi nekk suñu jur dinañ dem ba fi ñu ko denc ñu yeesalaat béréb ba toog fa ñaanal ko bu ñu ko ñaanalee aussi bu ñu dellu ci ngoon bi dinañ def ay conférence def ay projection de film dellu si waat aussi ci jaar-jaaram dellu si aussi ci taxawaay bi di xam ne ni quand aussi dinañ ñëw ànd ak ñun ci ci loolu noonu comme ñoom ni ñu koy def à waxaat ci jaar-jaaram waxaat ci taxawaayam pour Sénégalais yi pour jeunesse bi xam kan mooy bu Boun Lay Diop xam ban njëriñ la amaloon askan ak ñun aussi ban taxawaay lañ war a mën a am ba jaar ci ay tànkam ba amal njëriñ suñu suñu askan. Euh, kon tey jii tamit euh, beneen laaj est-ce que 11 mais bi aussi di marqué anniversaire u bu Bob Marley est-ce que yéen waa Africafest di ngeen ko màggal comme ni ngeen defee euh, bu Omar Blondin Diop waaw wala déet. waaw kon Bob Marley aussi gis nañ ne ku amaloon njëriñ askanu der bu ñuul la woon parce que rajo bi mu doon def aussi ñu ngi ko doon utiliser ci lu am solo. di waxal der ñuul di xeex injustice mooy aussi ku ku ku war di màggal la mais ñun la onze mai bi dañ koy jël jagleel ko Omar Blondin Diop. Hmm. mais ma gëm mooy ku magal Omar Blondin a magal nga Bob Marley magal nga Thomas Sankara magal nga keneen parce que ñun ñëpp ñoo bokkoon combat seen combat moo doon lan mooy nit ñu am jàmm fu mu mën di nekk. Hmm. kon kenn koo ci magal la day mel euh, laaj euh, ban euh, message ngay lancé wala ban appel autorité yi ci période de tension bi nga xam ne actuellement Sénégal mi ngi koy dund mu nekk tension politique et sociale. waaw tension bi may kii euh, appel appel bi may lancé appel bi may lancé par rapport ak tension bi message bi may lancé mooy Sénégal comme ni ma ko waxee sànq ñun ñëpp ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk mais jàmm ji ñuy woote nag pour mu am faw justice am maanaam faw ñuy doxal dëgg ci réew mi mais bu fekkente ne par parloo dafa am rek justice bi war a am amul jàmm du am parce que jàmm li koy saxal li koy dëggal li koy yiir mooy dëgg. fu dëgg amul jàmm mënu fa am kon dëgg boobu noonu lañ fexe ñu jëmbat ko ba mu jëm ci kaw ci kaw loolu ñu bàyyi par par la parce que man mënu ma concevoir nga moo xam ne képp ku amee nguur gi bu la neexee saaga bu la neexee lépp loo def ñu la kon day dem ba toll foo xamante ni ci nekk dafa am lu mu fi nekkal justice loolu xaw ko jóg parce que dañ la justice est rendue au nom du peuple kon nag waruñu am benn par parloo mais li may waxaat tamit bokk na ci li mën a apaiser la tension mooy njiitum réew bi fi nekk te nga xam ne amul droit def troisième mandat na déclaré ci teel ne moom du def troisième candidature bokkul ci élection yu jëm te mu bañ a jéem a xool kat mooy bokk ak kat moo dul bokk bàyyi askan wi tànnal seen bopp bàyyi askan wi tànnal seen bopp ñu dawal dëgg ku ni ci ñun ñoo war nga nekk ca parce que réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi bu tàkkee ñun ñëpp la hmm. du ci ku jàppale tamit réew bu tàkkee rek ci nit yaa ngi nag sa bopp mais nag pour éviter loolu yëpp faw justice bu jaar fi mu war a jaar dëgg am par parlo bañ a am naxante bañ a am ci ñu jiital intérêt Sénégal rek. Mm. loolu bu ñu ko defee je pense que situation bii nii dinañ ci mën a génn parce que ñu génn ci mooy sama intérêt mooy sa intérêt mooy intérêt homme politique parce que képp koo xam ne bëgg nga jiite réew bëggoon ñoo fekk réew mi dakk. Mm. te ñaanuñu yàlla li am dernière question rek par rapport ak euh, euh, détenu politique yi politiciens yu bari mm. surtout waa opposition ñu ngi ci nga euh, kaso bi mm. mais aussi ay activistes comme Abdou Karim Gueye Cheikh Oumar mm-hmm. Diagne yéen waa Africa First lan ngeen def pour libération détenu politique yi waaw ñun dèjà ñun bokk nañ ci plateforme bi F24 bi nga xamante ne tey taxawal nañ ko muy société civile bi muy mouvement panafricain yi muy parti politique taxawal nañ ko bu war nañ def manifestation de douze ñun ñu ngi ci ci biir mouvement boobu noonu. Mhm. ñun lépp xam ne injustice la ak fu mu mën a jógee ñun jàpp def lu gën a ñaaw loolu bokk ci nguur gi jàppul leen mooy li ma la wax sànq mooy képp ku far ci nguur gi lu la neex def lu la neex wax gis nañ ci naa joxe ci ay exemple yu dul jeex gis nañ ci ñu taxaw ne diw dañ ko war a rey diw dañ ko war a tàng dara fekkul leen ci gisal ci ñu fi taxaw ne juge bii nii fii la parti la bokk dara fekk la gis mais ñun ay ay ay ci ay mouvement panafricain lañ ay parti politique lañ bokk te boo waxee loo xam ne arrangé ñu nguur gi ñu jàpp la tëj la loolu jëmalul réew kanam te loolu bokk na ci li indication bi bi après yow nga ne mi dafa bëgg am dafa war a am jàmm te ñooñu defuñu fàcc ñu euh, rey nit mais dañoo koy jëmal kanam bokk na ku ne di wax xalaatam parce que président bi mu nekk tey ba muy opposé wu en deux mille onze deux mille douze lu mu waxul amul bu ko Abdoulaye Wade toppoon ci li mu doon wax dañ koy tëj bu boobaa dina président de la république mais mënoo nekk nga wax lu la neex kenn intimidé wu la yow nga ñëw jiite réew mi ne kenn du wax kon bu yàggee dañu nekk benn dictature rampante mu nekk des lendemains dangereux pour ce pays parce que lii mosuñ ko xamee Sénégal ku wax nga jàpp tëj ku wax xalaatam nga jàpp tëj ku bind sax benn texte bu ndaw nga di intimider nit ñi loolu baaxul ci suñu réew te loolu nit ñi duñ ko seetaan parce que nooteel man dama jàpp ne nooteel ku ko nangu rek dagan na. Mm. mag lu mu nangu ñu teg ko rek loolu dagan na ci moom te ñun bu ñu nangu ñu ngi teg injustice boobu noonu kon Afrique en injustice da koy xeex ba mu jeex tàkk. même bu fekkente ne affilié wul bokkul ci benn parti politique. mais boobu noonu nga xam ne opposition beeg mouvement yëpp ñoo ko créé. ñu ngi ci biir donc lépp injustice rek. merci beaucoup Assane Dione maa ngi lay remercier bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu samay laaj. merci beaucoup merci beaucoup man maa lay jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. may fàttali ni yaa ngi bokk ci euh, mouvement Africa First chargé de l'école du mouvement Africa First merci beaucoup. effectivement jërëjëf jërëjëf effectivement jërëjëf jërëjëf.